Il a revu de presse de Souleymane Ndiaye. yéenekaay yi ak Souleymane Ndiaye. dal leen ak jàmm tey dañ koy door ak yéenekaay bi nga xam ne moo di wal Walf wal Walf Quotidien nag dafa ñëw ci wàllum wàññi dund gi nga xamante ne nii gouvernement bu bees bi da diggee woon na ko wax ne ne bëgg na la 15 mai ñu daal di wàññi li nga xam ne ne mooy wàllum dundu gi mu nekk nag test bu majeur ci ni ko yéenekaay bi nga xamante ne nii euh, di wal Walf Quotidien wax na ko muy euh, euh, président Bassirou Diomaye am na test bu majeur boo xam ne nii ndax dina ko réussir lii bi di Walf Quotidien moo ko wax Amadou Ba nag moom daal dina agsi ci euh, euh, ndakaaru ci AIBD euh, bi mu agsee nag lii nga xamante ne moom moo di ay ay jegeñaaleem daal dinañ ko fa tertu tertu boo xamante ne bu mag la Amadou Ba ba nag gën na fosal boppam ne moom taxaw na taxawaayu chef de l'opposition yéenekaay bi nga xam ne moo di yor yor moom dafa dellusiwaat ci li nga xamante ne moom moo di rapport cour des comptes bi nga xam ne daal dina épinglé maire Saly bi di Ousmane Gueye wax na lu jëm ci wàllu mal gouvernance ci ni nga xamante ne noonu la yore euh, maire bi nga xam ne mooy maire Saly bi euh, yéenekaay bi di La Tribune moom dafa dellusiwaat ci wàllu euh, jaayum jaaykatu mburu yi mu wax ne boulanger yi ñoom daa dinañ wax ne bu ñu moytuwul dinañu yokk mburu mi ndax fu woyofal gi daf leen dafa cher ci ñoom lool kontóor woyofal bi daal sonnal na leen lool lool lool lool lool mënatuñoo am dara ba tax ne daal suñu moywul daañu yokk li nga xam ne moo di mburu mi waaye ba tey ci yéenekaay bi di euh, La Tribune euh, dafa dellusiwaat ci li nga xamante ne moom moo di mairie Médina ñu ne daal euh, dafa mel ne population bi seen càkkuteef mooy di ñu daal di ko def délégation spéciale ndax euh, gestion bi nga xamante ne nii daal euh, kii di maire bi yoree na ko nekkul loo xamante ni daal mairie ba war nañ koo bàyyi ci loxoom. yéenekaay bi nga xam ne moo di grand place moom dafa dellusiwaat ci li nga xamante ne nii dogal bi président Bassirou Diomaye jël pour freiner li nga xamante ne moom moo di féministes yi yi nga doon doon wax ne ah gouvernement bi daal. Euh, bëriwul ci ay soxna yoo xam ne nekk nañ ci. yéenekaay bi nga xam ne moom moo di l'indépendance moom dafa dellusiwaat ci passation de service bi nga xamante ne nii Waly Bodian amal na ko euh, fële ci euh, port autonome bu Dakar ak ki nga xamante ne nii moom mooy ki ko fa wuta di sëñ si. yéenekaay bi nga xam ne libération moom dafa dellusiwaat ci li nga xamante ne moo am ca Sam Notaire la am ca Sam Notaire nag moom maire ba nee agent yi nga xamante ne ñooy liggéey ca mairie ba lu lenn ci seen salaire dañ ko doon versé waat bi lii yéenekaay bi nga xam ne moom moo di libération moo ko le ginnaaw bi nga xamante ne nii rapport bi cour des comptes daal dina épinglé maire bi nee na am na ci ay agent yoo bëri yoo xamante ne nii lenn ci seen salaire dañ ko doon versé waat maire bi ca yàlla yéenekaay bi nga xam ne moo di l'observateur moom dafa dellusiwaat ci ay kàddu yi nga xam ne yëkkati woon na ko démb nee na carrément dette dette bi nga xamante ne nii producteur semence yi état bi ameel na leen ko mu nga fa ba léegi. lii la yéenekaay bi di l'observateur waxaat comme na mu ko waxee woon démb ginnaaw nag bi nga xamante ne nii ministre bi daal dina addu ci li nga xamante ne moo di TFM pour daal di weddi tuuma yooyu waaye l'observateur dafa dellusiwaat ci même la mu bindoon démb. yéenekaay bi di Le Point moom dafa del soit ci euh, le général bu bees le haut commandant de la euh, de la gendarmerie nationale euh, directeur de la justice militaire yéenekaay bi di Le Point moom dafa del soit ci tem mu wax ne le général Martin Faye une expertise avérée lii la yéenekaay bi di Le Point daal di wax ci ki nga xamante ne ni mooy le nouveau haut commandant de la gendarmerie yéenekaay bi di la mandat moom dafa dellusiwaat ci procureur bi mu ne ginnaaw bi nga xamante ne rapport cour des comptes yi épinglé na lu ñu bari lu tax procureur bi auto autosaisirul lu tax waxu àdduwu ci sénégalais yi bari nag jàpp ne da da cee war a àddu da daa war a woo déglu ñenn ñu bari. yéenekaay bi nga xam ne moo di 24 heures moom dafa dellusiwaat ci Moustapha Sarré bi nga xam ne mooy porte-parole gouvernement bi nee na ne yi dalal seen xel seen xel dina am ay poursuite waaw képp koo xam ne def nga naka noonu ci àllu réew mi. wa wallaay yoon dana la topp lii la Moustapha Sarré xamle ci yéenekaay bi nga xam ne moo di vingt quatre heures waaye tey ci yéenekaay bi di vingt quatre heures Idrissa Seck moom mu ngay ñàkk doole politique de gaaya ay nitam a ngi koy woon gannaaw de kii di As kër Guèye moom daal dina ko daal dina ko woon ginnaaw kon nag mu nekk ne euh, gën a dëggal li ñuy wax ne Idrissa Seck mu ngi ñàkk euh, doole politique mu nekkoon seen revue de presse ngeen àndoon ci ak Souleymane Ndiaye ñu ngi leen di jaajëfal ba suba ak jàmm la revue de presse de yéenekaay yi ak Souleymane Ndiaye